asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki réew mi bokki Sénégal maa ngi yëkkati ay kàddu yoo xam ne laa biire moo ko tax a jóg mu jëm ci waa réew mi ak population bi bokk yi mag ñu baax ñu Sénégal day mag ñu baax ñu wutaloon nan nu way wu rafet woo xam ne réew yu ñu wër yépp ñeewoon nañu ci te mooy Sénégal benn bopp la réewum jàmm la réewum teraanga la way woowu nag noo koy yàq ba sunuy doom ak sunuy sët duñu ko fi fekk réewum xeex ak xuloo ak wax ju ñaaw lanu leen di tabaxal bokk yi loo may jox ma yàqal la ab deram loo may fay ma defal la montage ci ay waxam loolu dey bokkut ci makaarimul axlaax bokkut ci liy jëme am réew kanam bokk yi am réew su fekkee baal ma baaluma la jéggal ma jéggaluma la fayul moom la tooñ moom la ñuy féetewoo naka la fa yërmande yàlla di wàcce politique danu ko yàq ci baat boo xam ne politique danu ko yàq ci baatu amul xarit amul mbokk amul àndandoo yàlla nekku ci intérêt àdduna rekk la loo may jox ban poste laay yore kañ la réew mi defaru bokk yi xool leen ci ñi ñu jiitu woon ana Blaise Diagne ana Ngalandou Diouf ana Lamine Gueye ana Dia Mamadou ana ñi ci toppoon ñëpp ñoom ñooñe day tey ku leen fekkoon fan tëdd njëggalu yàlla moo leen gënal foofu ndomb tànk gum mën a doon ku dul jéggale nag bum séentu mukk njëggalug yàlla bokk yi politique tas na kër yi yàq na bokk gi bu ñu demee ba wuute ay xalaat wuute ay gisin tax su nu jàppee sa mbokk nga yéene ko ko te doo te yëkkati genn kàddu gu rafet àdduna jëru ko ndax day jeex baa nga jeex yow ci sa bopp doy na mukk dooy na sëkk ab leçon diggante Senghor ak Abdoulaye Wade bokk yi Senghor day fu jaar na fa ak Abdoulaye Wade ba yàlla dogal nguuru socialist Abdoulaye Wade gañe leen ci nekkuk Abdou Diouf waaye xereñuk yàlla ak xam ëllëgam tax na Senghor faatu Abdoulaye Wade gañe réew mi Abdou juuf génn réew mi ñu indil néewub Senghor Abdoulaye Wade muy président la République du Sénégal nguuruk Senghor ak Abdou juuf gépp ànd topp ci ginnaaw Abdoulaye Wade mu jiite leen loolu day ku leen ko waxoon cay ay jamono duñ ko mën a xalaat waaye ëllëg mat naa bàyyi xel mbokk yi kilifa su yoree kër te njaboot ga ñemewuñ ko yar leen dana jafe ci moom ndax lu leen tere su teewee ñu def ko waaye su génnee rek ñu delluwaat te lam leen doon tere kilifa day am yërmande cim njaboot ci ak njabootam amal leen njariñ am réew nag lenn njiit képp la mën a am waaye njiitit nag du farfarloo ci ak ak njabootam bokk yi ñi am kàddu te defar rek tax leen a jóg te suñu waxee mu amal njëriñu waa réew mi rekk waaye bu leen doon magum xamoon naa ko nangeen doon magum waxoon naa ko ndax su ngeen ko waxee seen jaan dana wàcc bokk yi na yëg ñëpp yëkkati seen kàddu ndax réew maa ngi bëgg a yàqu te su yàqoo ñun ñëpp ñoo ko bokk bokk yi danaa dellusiwaat nag ci mbirum politique incha allahu rabbi ndax bi Sénégal amee indépendance président de la république bi fi njëkk a nekk ñëwoon na seet si woon fii alhaaji Mouhamadul Fadal Mbacké yàlla na yàlla dolli ngërëmul yàlla ci moom am lu mu ko proposé woon ci wàllu législatif yi ci wàllu député yi am ñum tànnoon am na lu ko sëriñ fàllu tontu woon ci diggante kilifay diine yi ak politique bi incha allahu rabbi danaa ci ñëwaat leeral leen ko ba yen ñi jóg dugg soobu ci géewu politique bi ngeen xam fu ngeen di seg seen tànk bu wér te kenn bañ leen a nax maa ngi sàkku nag ci mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi dégg sama kàddu bu ñu foyee seen bopp bu ñu foyee seen gànnaay foyee sa gànnaay mooy fab sa identité ak sa carte électeur jox ko koo xamante ne bii ëllëg gi si biir mën na laa jaarale ci yoon wala neexut téye leen seen carte yi téye seen carte électeur yi di ko teg ci condition yu leer nañ ñi te bañ a jaay seen bopp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.